actuel xamaguñu ñoom seen salaire de ministre ñu ñaata la loolu lu ñu war a la jënd deuxième chose mooy. Ah, seen salaire nga bëgg a xam. non dañ ko war a xam salaire. Hmm. ñun ñoo leen di fay du lu ñuy nëbb gis nga moo tax ma ne la sànq gis nga cette rupture la hmm. il faut que mu nekk su le plan national dans tous les secteurs. bu ko bu ko taxawloon. waaw ah. bu bu bu fixé ministre yi ba pare bloqué ko. mais xam nga luy problème bi xam nga on parle des un DG peut gagner beaucoup plus que son ministre. moo gën a garaaw fa laa doon jëm si. un DG tu vois DG qui se taille des salaires de 17 millions. mais 16 alors que le ministre a 3 millions. au Sénégal. oui mais est-ce que tu sais que le président de la République normalement ses émoluments son salaire bu Sénégal 700 et quelques mille francs la. Macron il a un salaire de 13 000 euros par mois 13 un chef d'État salaire am warul dépasser foofu. deuxième point bi nga xam ne moom la Birahim wax mooy. président de la république boo jeexalee sa fonction dañ la war a accompagner mais fii ni ñu accompagner président de la dafa bëri 9 millions de salaire mensuel jox la secrétaire jox la garde corps jox la oto ci président boo xam ne tu as bousillé ce pays pendant 12 ans. kooku mérité woo sa salaire. cabinet cabinet la je parle du chef de l'État le président Macky a bousillé ce pays comment. il a il a mais dans tous les secteurs on peut en parler non mais il faut qu'on en parle parce que. wax nañ léegi ci mbay mi. depuis 12 ans Macky Sall est la bay bay baykat yi gën a ndóol d' accord nga. Abdoulaye Wade nag non dë depuis li les libéraux sont arrivés au au pouvoir. Mm. en 2000. Mm. ci la Sénégal commencé jël tournant bu bon bi. ma Abdoulaye Wade il est venu il a fait 12 ans catastrophique indi fi ay nit ñoo xam ne dafa mel ne ba ñu juddoo ba tey musuñu mus musuñu gis xaalis ñu nekk ci benn gabegie boo xam ne détournement de deniers publics tàccum xaalis gu dul jeex ci réew mi. Ablaye Wade Macky Sall ñëw c'est la même famille libérale doomu Ablaye Wade moo ñëwaat yor nguur gi àndaat ak ay nitam yoo xam ne dañoo meroon ngemb ci Ablaye Wade ñëw ñoom it ubbi seen i tentacule moo tax ngay dégg scandale yi rapport yi am yëpp ci Cour des comptes OFNAC ngay dégg yëpp ñoom gis nga réew mi bu ñu ko càmmaroon am na ñoo xam ne tey ils sont pressés de quitter le Sénégal pour pour rejoindre les li ñu yor ci alal kenn xamul nu mu toll c'est sur le dos du contribuable sénégalais. ñu nekk ci réew moo xam ne Sénégal yi di liggéey di fay impôt di ko dugal ci ay secteur ay nit war ci liggéey defar jaamu yàlla ci seen réew ñu jël alal jooju di ko détourné di ko lekk saa yu Senghor lan ngay doyee un milliard. lan nga koy doyee un milliard boo doon lekk chaque jour cinquante mille mën ngaa dund quatre-vingts ans yow mënoo lekk chaque jour cinquante mille. lan la ñu dee un milliard. dans cette euh, vie là on a besoin que de lekk naan tëdd am benn kër benn oto doyul. xaalis bi ngay jël milliards di ko teg ci biir banque yi ay 7 8 milliards 9 milliards nga di ko dënd lan nga koy doyee doyoo ko dara au moment où boo demee fonga la mi hôpitaux yi amuñu lu ñu fajoo est que xam nga ne gars yu gouverner ay criminel lañ parce que bu ñu la dékkee benn département ñu nga war a fa ñu ñu ñu dugal fa alal alal jooju war a servir population yi nga jël alal jooju lekk ko fu mel ni Fongolimbi mi wala Tamba wala Kédougou war a am hôpital war a am ay seringal wala ay femmes yi war a accoucher amuñu ay matériel ñooñu bu ñu dee yaa leen rey tu es l'assassin xam nga nit dañu foog ne jàpp fetal rek dóor nit ñooñu ñooy assassins yi y a des assassins à col blanc qui sont dans ce pays là. parce que mandat a am. mais évidemment Macky Sall war woon génn sax réew mi man bu doon may jomaay bu ma jëlee fonction laa koy du résidence surveillée li li lijjanti mbiram. waaw toogal ci réew ñu ñu lijjanti. monsieur Diène waaw parce que dañoo war wax ci ci bi temps bi mi ngi dem. voilà c'est ça Ablaye Naak ñu mën a wax ci DP bi ak moom balaa temps bi dañu xoj. lu uh-huh. jëm payooru jëriñ yi nga xam ñoo weesu maanaam tey boo nekkee ministre ba jóge fi